mbokki baaxoo di teewlu xibaaru bambuk dal leen ak jàmm ci seen tënkum xabaaru euh, bés bi euh, final euh, jeu xeltu bi nga xam ne IEF bu Koungheul da koy amal at bu jot daal doon nañ koy def fii ci Koungheul niki samedi ñett fan ci weeru juin bi nga xam ne moom lañ daal di génn fële ca Saint-Antoine de pado final bi nag mu ngi amoon ci diggante école élémentaire bu Lour Escale ak école Saint-Antoine de pado ci final bi nag ñu ngi ko tuddee woon ki nga xam ne mooy Michel Badiate nekk euh, nekk bras droit ki nga xam ne mooy honorable député Fanta Sall waaye nekk tamit di liggéey fële ci ministère de finances gannaaw final bi nag gis nañ ne école Saint-Antoine du moo mujjee jël ndam li gannaaw ba nga xamee ne nag daal dinay remporter euh, li nga xam ne mooy compétition bi ndaje bi tamit mun nañ cee lim te waaye IEF di Mamadou Oumar Gueye ak ñi nga xam ne ñooy autorité éducative yi nekk fii ci département bu euh, Koungheul moom nag euh, parrain bi Michel Badiate daal dinay gannaaw ba mu sante gërëm euh, ñi nga xam ne ñoo ko tuddee mbir mi daal dinay remercier délégation bi nga xam ne moo ànd ak moom rawatina honorable député Fanta Sall nga xam ne daal dina koy jàppale bu baax ci final bi élèves yi nekkee fële ca lycée Bouna Kane fële ca Euh, Kolda ñoom nag euh, dañoo daal di génne seeni moroomu élève nit ki euh, tey ndax dafa am ñenn si ñoom ñoo xam ne dañu leen tegoon loxo ci manifestation yi weesu ñoom nag dañoo jàpp ne ñoo ñi nga xam ne daal dinañ leen jàpp seen place di élèves yi newul ci kaso ba waaye dañoo war a dem ci classe ngir seen dañoo war a dellu ci seen classe yi ngir mën a jàng loolu nag moo tax ñu daal di mer ba futt daal di génne seen yeneen mbokk élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen euh, collèges yeeg euh, lycées yi. délégation du club 50 pour cent euh, préférence nationale nga xam ne daal doon nañ tàmbali seen tournée nationale bu yàgg jamono ji nag ñu ngi woon Casamance doon wéyal seen plaidoirie fexe ba woo nguur gi ci lépp loo xam ne da koy jënd wala lépp loo xam ne da koy jëfandikoo mu daal di si jiital bëgg-bëgg ñi nga xam ne ñooy entreprise yi nekk fii ci biir réew mi. ñoom nag euh, li ñu nemmeeku mooy am na fuñ euh, dëkk boo xam ne dañ fa dem ñu daal di leen arrêté daal di leen euh, sant ngir que ñu daal di dëpp loolu nag tax na sëñ Modou Bousso Dieng mi nga xam ne moo jiite kuréel googu daal di wax rek ne amaana sax seen bakkan mënoon a faa des waaye yi nga xam ne daal nañ ko fay def moo tax ñu daal di leen bàyyi ñu mën a dellu di fàttali rek ne délégation boobu day wéyal di waxtaan nag ñi nga xam ne ñooy askan bi fexe ba nguuru Sénégal tamit daal di jiital euh, ci euh, lépp loo xam ne da koy utiliser moo xam muy commander publique ba yëpp mu fexe ba li nga xam ne dañ koy defaree ci biir réew mi ñu daal di koy euh, jiital ci loolu nag Abdoulaye Sylla mi nga xam ne mooy PDG Ecotra moo daal di jiite kuréel googu. gannaaw loolu ñu àddu ci wàllum tàggat yaram ak communiqué bi nga xam ne fédération sénégalaise de football daal dina koy génne di wax rek ne dañuy dakkal bépp compétition ak match fépp ci. réew mi li ko waral nag mooy dëkk bi nga xam ne jamono ji xaw na euh, tàngu lool muy tension sociopolitique bi nga xam ne daal dina fi am looloo tax nag ñu daal di génnee communiqué di xamle ne euh, comme jamono ji euh, jafe-jafe dafa bëri ci dëkk bi ak marche rek manifestation yi dañuy fas yéene arrêté bépp compétition moo xam championnat moo xam match bu mu mënta doon ba nouvelle ordre loolu nag tax na mu daal di sàkku ci collaboration wu képp koo xam ne rek